merci beaucoup Bala Moussa Fofana merci également du euh, compliment ñu leen di wax ne la voix des sans voix également mun ngeen ñu suivre si suñu ay euh, plateforme muy YouTube ak euh, Facebook mais également mun ngeen ñu ci envoyer lépp loo xam te ne ay suggestion la également par rapport à cette émission sortie tout le temps on essaie de bonifier voilà Moussa contexte bi ñu tolloo fi mu nekk fi actualité tolloo également mais au sein de PASTEF mun nañu wax ne vous poussez un ouf de soulagement effectivement on ne le contraire mm-hmm. ndax formation bu nga xam ne dañu jël plus de mille cinq cent personnes ci say ci say sympathisants mm-hmm. ñu tëj leen ci kaso bi te amul kenn koo xam ne tey mën nañu ne am na dossier bu dëgër buñ koy toppee dégguñu procès dégguñu dala yaakaar na loolu souffrance bu métti la si ñun mm-hmm. ñu bëri xamuñ ko mais dafa bokk ci suñuy activité ak loo xam ne dañ koy def mooy programme boo xam ne ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci dans dans les liens de la détention ñu leen di taxawu. Euh, jug aussi di dem seeti seen famille. pour pour wan leen ne xëy na ñu ngi leen di taxawu si biir. Mm-hmm. waaye fàttewuñu leen yéen ñu ngi bokk ak yéen naqar wi. Mm-hmm. donc loolu dafa bokkoon ci suñuy activité mm-hmm. ci at yi yëpp ndax commencé wul démb commencewul wul barki démb mais ça a commencé depuis. depuis depuis juin deux mille vingt et un mhm. depuis waa mars mhm. donc mu nekk loo xam ne tey bu ñu amee ñu xëy ñun ne libéré nañ leen ñoom ñëpp ba noppi di leen solagement soulagement lay lay doon pour ñun mhm. ak nag peu importe le contexte mais d'un point de vue purement humain c'est un soulagement que nous voilà donc donc contexte purement humain mais ba léegi tamit des na est-ce que yaakaar ngeen ne vent bi dina continuer di souffler arrêté nañu le samedi pour dire qu'on reprend lundi est-ce que toujours vous gardez espoir que la parole sera respectée la parole sera tenue en tout cas du ma wax parole respectée parce que nekkuñu en négociation ba ñu jox ñu parole ne ñu dinañ ko respecter je ne peux pas je ne dire ça. Mm-hmm. par contre man dama bokk ñi nga xam ne te ku ma yàgg seetaan ci at mi yàgg naa yàgg nañ ma dégg may wax la président la république que ne ko yow yaa war a apaiser réew mi yow yaa war a dalal nit ñi am na loo xam ne xajul ci Sénégal xajul ci république xajul ci démocratie. Mm-hmm. donc man su ma xëyee peu importe nag ce qui lui passe ce qui lui est passé dans euh, à ce qui lui est à l'esprit mu xëy jël décision ne day indi apaisement. wax ko d'après la presse ba noppi di ko jëfee li ñuy ñaan rek mooy mu continuer ba képp ku nga xam ne yaa ngi nekk dans les liens de la détention ñu considérer ñun comme des prisonniers prisonniers politiques mm-hmm. et aujourd'hui je pense que ñëpp nangu nañ ne c'est des prisonniers politiques vu comment on les a libérés mm-hmm. donc damay ñaan yàlla rek na processus boobu continuer parce que boo jëlee mille cinq cent personnes tëj leen yaa ngi impacté près de cent cinquante mille personne parce que c'est la famille sénégalaise. Mhm. xam nga ni mu mel. donc naqar woowu tiis woowu boo ko teggilee nit ñi surtout injustice boo réparé mun nañ sax ne <laughs> réparé wuñ ko parce que. Euh, c'est c'est c'est c'est profond souffrance bi nit ñi dund. traumatisme bi nit ñi dundu injustice bi nit ñi dundu je pense que ne. war nañ sax jug teg ay cellules xool ñooñu naka lañ leen di accompagner sur le long terme. Mhm. parce que même ki commettre crime. war a dem prison prison war ko dimbale même su génnee dafa soxla ndimbal asantuma gor boo xam ne bëgg réewam patriotisme génn marche mu nekk lu nga xam ne ni c'est tout à fait normal dans une démocratie moo tax mu retrouver wu dans des conditions de détention atroces et inacceptables. Mhm. soutien psychologique bi gis nañu ne mettre ngeen euh, sur pied benn euh, pôle. de médecin on va dire pour prendre en charge euh, loolu nga xamante ne gis nañ ko mais soo déggee témoignage yi également mm-hmm. day indiwaat euh, la lancinante question du fonctionnement de notre justice tey ji absolument de notre justice mais aussi euh, des conditions détention yi dans nos prisons mm. dama koy faral di wax ne une société humaine yaa ngi mesurer humanité société bi à travers nit ñi ñu arrêté à travers la condition de la femme Mm-hmm. la condition de l'enfance la condition des étrangers mm-hmm. ak ñi nga xam ne yàlla dafa def ne seen xel dafa wàññeeku wala am lu wàññeeku su ñoom mm-hmm. ci catégorie yooyu ngay xamee ne ndax askan wi seen niti gi ñuy woowee ñu ngi koy jëfee donc man su ma gisee prison yi nekk ci réew mi ñu ne sunuy nit sunuy mbokk sunuy deret sunuy doom sunuy mag sunuy rakk la ñuy jël di leen dugal foofu ñu génn foofu ak des des problèmes psychologique et physique mais d'une gravité extrême ba noppi ñu di ko def ça fait plus de vingt ans qu'on en parle. Mm-hmm. je pense que ne war nañu régler problème boobu un homme d'État responsabilité la mun mënoo nekk derrière des croyances yu nga xamante ne nii c'est des croyances mais mais mais mais mais mën naa ne op op obsolète nga ne yow doo tabax prison parce que da nga bañ a dugg ëllëg je mm-hmm. pense que ne tey boo tabaxoon prison sax féexal ñi nga xam ne nattu dafa tegu si ñoom di nga si am ngërëmu suñu borom mais di nga ci am ngërëmu ñooñu yaakaar naa ne loolu moo gën a nite et responsable que nii ñuy xalaatee ak di ko doxalee ak souffrance bi ñuy teg nit ñi. Mm-hmm. maintenant suñu justice c'est vrai mois j'ai écrit dernièrement téere bu ma tuddee le projet souverain. Mm-hmm. te téere boobu li mu li mu jublu mooy wane quels sont les fondements. de l'idéologie souverainiste de Pastef ouais. ak quelles son les raisons te daf ci bokk li ma leen di wan mooy dañu hérité d'un benn système de domination du colon système centralisé du pouvoir mm-hmm. qui permet de dominer une population pour jot seen alal génne ko réew mi mu jëriñ leneen ñu jël ko ñoon suñu indépendance continuer ak di ko gouverner un peuple bu nga xam ne démocratie lañ bëgg et boo xoolee espace de justice xam nga exécutif sax ñooy fal la président de la république. ñooy fal les maires. Mm-hmm. mais corps de con mais alal ji jox nañ leen set pour pour pour Macky Sall par exemple cinquante mille milliards. mais Macky Sall comme il contrôle les corps de compte les corps de contrôle. logé à la présidence. mais amuñ jusqu'à maintenant amul benn benn benn membre benn bokk yaakaar bu musa taxaw ci justice layoo. Mm-hmm. waxuma moo def waxuma deful de layoo ci kaw xaalis buñ la jox amul donc nga gis ni bu dee système bu dee souveraineté amul ci justice amul ci exécutif parce que mënuñu contrôler alal ji ñu leen jox. Mhm. nga ñëw assemblée nationale. majorité des députés parti yi ñoo leen tànn def leen ci list mhm. nationale pour que ñu dem assemblée. askan wi yóbbuwu leen fa. ba noppi même ñi nga xam ne dañu gagné depuis les départements raar ngay gis député boo xam ne li ëpp ci askan wee ko fal. souvent mhm. day gis nga xam ne vingt cinq pour cent trente pour cent lay rawee ña ca des pour cent yi faluñu ko. député yooyu est-ce qu'on peut dire qu'il qu'il représente la souveraineté du peuple mhm. et moo tax nga mën a gis assemblée nationale yenn loi yi di fa mën a jàll nga ñëw nag ci justice pour répondre directement à ta question justice ki nga xam ne bu bu bu jëlee décision ce n'est pas susceptible de retour mooy les les les juges euh, conseil conseil mhm. le président la république moo leen di tànn mhm. où est la souveraineté conseil supérieur de la magistrature. man ma gëm ne conseil supérieur de la justice la war a doon parce que magistrats yi du ñoom ñooy la justice. c'est quoi la différence entre conseil de la justice et de la magistrature. magistrature c'est des fonctionnaires. oui mais. alors la que justice c'est pour le peuple sénégalais. waruñu def un conseil supérieur la magistrature non on doit faire un conseil supérieur pour parler de notre justice. Mhm. qui appartient au peuple sénégalais. et foofu dama gëm ne li fa ëpp ci nit ñi fa war a ne askan wee war a tànn. tey jii da ngay gis ne ña fa c' est le président de la république qui dirige c' est le président la république mooy tànn ministre de la justice ba noppi tànn procureur bi topp nit ñi mais ana ana ana indépendance de la justice da gis ne tout not système de gouvernance tous les trois pouvoirs dafa am benn nit bu nga xamante ne nii moo ko téye tant que loolu mi ngi am ci réew mi ça va être très difficile ñu am une population boo nga xam ne li muy yëg ak di ko xalaat dina ko mën a doxal Mhm. tey euh, ministère public boobu tey ak le juge instructeur tey lu ñuy njaaga moom mooy njaag ci li nga xamante ne moom moo xew. Mhm. et pourtant le ministère public askan moom ko waxoon tax a jóg moom moo ko waxoon tax a toog tey si tu entends les témoignages qui ressort mhm. moom moo di ne dafa am une immixtion ou une forte mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. absolument da ngay gis ne c'est comme si le procureur joue le jeu de la logique politique. c'est-à-dire que am na une formation politique bu demande marche. pour exprimer benn désaccord sur le plan purement politique. nga bañal ko ko mu xam ne li nga ko bañal war a ko ko bañal mu ne day marche ñu tëj téye jël nit ñu di tëj tout simplement te loolu dafa nekk une gravité extrême parce que tey bu ñu nekkoon dans dans dans j'ai eu la chance ou la malchance de passer une dizaine d'années sur le continent nord-américain foofu seen système le procureur. <laughs> du as du du jiit bi moo koy tànn non c'est le département mooy mm-hmm. fal procureur bi mu bëgg yaakaar nga ne ku ñu fal ci département bi mu nekk un magistrat bu battre bu battre campagne wax askan wi ne je vais poursuivre au nom du peuple mais du ma poursuivre au nom d'un régime kooku tey bu nekkoon procureur ñu ñëw xëy ko jàpp ay xale ci manifestation présenté nga ko est que jàpp nañu traitement bi boobu traitement politicien boobu la koy defee mm-hmm. non non du ko mus a def mm-hmm. si suñu système des juges des libertés ñoo xam ne police wala procureur munta def dara sénégalais bi tant que kooku xoolul ne est-ce que on a respecté les liber les libertés de l'individu mhm. suñu amul élément yooyu suñu justice sera toujours justice bu nga xam ne benn corps moo ko gérer benn parce que corporatisme fu ne la am mhm. te corporatisme warul gérer suñu justice li war a gérer suñu justice mooy askan wi ko tànn askan bi moo war a tànn pour man li ma gëm les acteurs clés hmm. du système moo war a tànn les juges des libertés tànn les procureurs euh, ñooñu war nañu siéger conseil supérieur de la magistrature ce qui fait que ña ëpp mooy ñu ñu tànn président mën na ko présider de manière honoraire mais waruta mën a nekk fa di honorifique je veux dire mais waruta fa mën a nekk di jël ay décisions yenn décisions yi dans ce cadre là man gëm naa ne mën na noo avancer mais bu ñu continuer ci système bii fi ne et c'est ça le système système bi ñuy mais est-ce que c'est pas le euh, les partis qui jouent le jeu également euh, parce que président la ñuy wax naan moom la ñuy ñaan clémence la ñuy laaj ci moom pour mu dogal or bu ñu respecté woon li di séparation des pouvoirs amuñu lu ñuy ñaan président xam nga séparation des pouvoirs euh, nan laa ko mën a waxee objectif la mhm. principe la mais principe boo gis danga war a teg dispositif bu koy matérialiser. Mhm. soo ne séparation des pouvoirs loolu moo ne ci texte yi mais si dans le dispositif électif si dans le dispositif de mise en place des trois pouvoirs matérialiser woo séparation boobu séparation amul. Mhm. mooy li ma doon wax sànq. bu fekkente ne ci biir pouvoir exécutif par exemple si biir si biir pouvoir euh, exécutif effectivement nañu resté foofu. Mhm. population yi ñooy tànn président de la république tànn les maires. mais en même temps président boobu moo yor contrôle corps de contrôle yi mais séparation des pouvoirs du am parce que contrôle bokkul ci exécution contrôle dafa war a jógee ci loxo euh, exécutif dem ci loxo justice wala mu dem ci loxo législatif là ce qui fait que l'exécutif moom on lui donne des deniers publics il va aux élections il gagne on lui donne les les publics mu doxal mais munoo yow di doxal sa bopp ba noppi di contrôler sa bopp ñu ñëw ci assemblée nationale mënoo am assemblée nationale bu nga xam ne chef de chef de parti yi biy diriger exécutif ñoom ñooy tànn li ëpp ci député yi non il faut fair de sorte que l'ensemble des députés du Sénégal ñu fal leen depuis les départ départements et de manière majoritaire loolu buñ ko amoon équilibre day am mën nga bokk sa parti mais nag sama département moo ma fal duma dem assemblée di fa def lu nga xam ne ëllëg damay am gàcce mën nañ jël même logique boobu andi ko au niveau de la justice mënuñu am justice boo xam ne nee nañ pouvoir indépendant la pour revenir sur séparation du pouvoir mais c'est l'exécutif qui choisit tous les acteurs où est la séparation donc mën nañ wax principe de séparation mu nekk principe mais dans les faits mm-hmm. on voit l'imi l'immixtion de la de l'exécutif dans tout dans les deux autres pouvoirs mhm. et que dispositif boobu mi ngi mi ngi nekk jaxaso boobu mi ngi am séparation bi dañ koy wax nii rek mais le président de la république pour pourra toujours def li mu bëgg jël ay nitam jox leen alal ju bëri te kenn du leen contrôler conseil supé euh, euh, conseil constitutionnel conseil supérieur de la magistrature ba noppi euh, procureur yi mu mu positionné ñu nga xamante ne nii dañ koy déglu lu bëri di seet lam bëgg ñu di ko defal ba noppi assemblée nationale mu tànn ay nitam yóbbu leen assemblée tant que ñu ngi nekk ci loolu souveraineté. Mhm. du peuple du musa am. d'accord et c'est-à-dire que dans votre programme tey jii dans le PASTEF refonte de tout cela ngeen di jëm. absolument quand on parle de solution. bu ma génnee livre tuddee ko le projet souverain mais les dix fondement de la refondation ñun dañ gëm ne il ne peut pas y avoir de développement sans souveraineté